des droits de la femme tey suñu bés la bu base. ah yeah, yeah. Nouraz. happy happy. Women's Day Women's Day. yeah. ah you women you the best. yeah. ah bu dul woon yéen. yeah. donc jigéen ñëpp ñu ngi leen koy souhaité di leen ñaanal jàmm ak salaam. Uh-huh. Uh-huh. en tout cas GFM jox nañu cër jigéen ñi. on a des postes de responsabilité. Ah, te émission yëpp ñun la. yéen ñëpp ñun góor yi góor yi góor yi <laughs> tuuti lañ ci am. ay 10 uh-huh. pour cent 90 pour cent yëpp jigéen ñee ko donc ñun jigéen ñi on nous souhaite de vivre mais surtout ñu am jàmm ju bëri bëri bëri bëri bëri.